gannaaw ba nu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq bokki jullit yépp ak bokki dëkkandoo yépp lu ñu yëg ak lu ñu yëgut tey tey jéggalu tey balu xaq tey bale xaq yal na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante tey day tënku ci li xew ci jullit yi doon nañu ko junj keroog xew-xew boobu jàngat mi ci gën a fés mooy lépp loo xam ne xelum kese-kese moo ko tëral tëralal ko nit ñi nit ñi di ca dund di ca dox du mujj fenn fuy fii rek moo xam muy luñ jëme ci xalaatub àdduna kese-kese rawatina loo xam ne dañu koy tudde diine te ay nit kese kese daja dajo daje waxtaane ko ci seen xam-xam bu rëy bu ñuy wax walla ci seen xel mu gudd mu mën a ràbb lu nekk bu doxee tuuti rek danañ xam ne diine diine suñu boroom lay mën a doon ka koy tuddoo mucc ñami dajal ci kaw yoon wi mucc ndax léeg-léeg nit di dox ci kaw aw yoon sàmmonteeg li yoon wi laaj lépp waaye kuy nelaw mooy jóge fële ni tell ci kawam rey ko reyaale ko yal na nu yàlla musal ci lool bokk yi li xew mooy naka jekk lislaam musta féex jamono yu nekkut di am ku muy jànkonteel war koo joggi jàggi ruur ba yàlla wàccee kaw nit ñi ci kaw suuf ba fi ne mi ngi am ndax leneen fi indi woon mooy noonu yàlla bu noonu yàlla te mënulut yàlla dara mu seet ñi nga xam ne yàlla daf leen a teg loxo ñu bëgg a teggi loxob suñu borom ba jëf leen teg ñoom dàq kattanu suñu borom gi dàq sañ-sañam bi dàq dooleem ana li xew mooy lan am na réew mu ñuy wax Burma ñi di ko wax Myanmar ñi di ko wax Birmanie yetti tur yooyu boo ko ci wooyee mu tudd ko junjoon nañu ci karoot ne am na ci kilifa ya nga xam ne ñoo jiite diina ja muy diiney bouddhisme ku ne dereti jullit yi dagan na fu ñu leen fekk nañ leen faagaagal ci loolu ñi nga xam ne seen pas-pasub diine mu ngay dund te yor dooley politique dooley àdduna daat nañuy jóg ci ay bis bi ca saasa ñoom dëgmali barab booba am na ci ku ñuy wax turki moo ne turki day réewum layik la waaye layik ci nit ñi lay nekk du nekk ci réew mi góor googu ñu koy wax Tayyip Rajab Tayyip Erdogan na ko jullit yépp ñaanal fan wu gudd moo jëkk a taxaw ñaawlu ko ci doon gém doon njiitum réew moo xam ne julliti kese fa dëkk loola doyu ko waaye dafa jël ay takk der yu dul jeex na day dem dimbale ci jullit yi ba mu fa jëkkee yónni ab ministre am ba ko jullit yee gisee dañoo mel ne ku gis baayam bu tukki woon tam namoon ko dañ ko doon laxasu di jooy jooy yu metti xam ne yàlla léegi mu yónnee ku leen dimbale koo xam ne moo ëpp doole fuuf noon bi te bu ko yërëmut waru ko ëmbal jenn yërëmade sax am na ca réew mu ñuy wax Iran bu ma ca topp moom itam yabal ay takk der ñu ne su loola dëkkut danañu taxawal jullit yépp yàlla na leen yàlla fay bu dee ci réew mii ñu nekk it am na ku ñuy wax sëriñ Abdul Aziz Al Amin moom itam dégg guma ay waxam waaye nee nañ ma wax na ci wax ju am solo moom sëñ Abdul Aziz Al Amin it yàlla na ko yàlla dolli amaan ak am bokk yi kilifa bouddhiste yooyu moo wax ci làmbañam ñëpp dégg ñu bari bokk dégg nañ ko mu ne jafe-jafe bi réew ma am mooy jullit ya fa nekk te néew fa lool téeméer boo jël ñeent dong lañ ca waaye ragal na ne moom danañ dem ba yàgg ñu nangu réew mi ci seeni loxo ndax dañuy yor ay soxna yu bari te dañuy jur ay doom wax na dëgg diina joo xam ne góor ñi duñu am ay soxna jigéen ñi duñu ami boroom kër ku ne xam naa ne du fa yàgg ndax léegi tey ñu jeex dem ba jeex loolu mu wax nag moo fësal njuumteel diine ju ñu mën a wax ju dul diine lislaam moom dem na ba xam ne jullit yi dañuy takk lu ëpp seen soxna te soxna su nekk bu ko yàlla dimbalee mën naa am fukki doom su yàggee tuuti mën nañoo dem ba ëpp fa doole daal dafay taxawal réewum diine lislaam yàlla na ko yàlla def foofu mu waxee nag ci xel mu gàtt ñàkk xam-xam ku bari xam-xam day xam lu bari mu ne su ta xam lépp de waaye kuñ ne am na xam-xam la muy xam mën naa yaatu lool ba sax fànn gu nit xam boo toogee ak moom tam mi ngi ko mas a dégg ci yow it soo ko waxee xam-xam bi luy lay taaja mën na caa warante ak yow waaye umpale gum umpale yàlla yàlla moom bu ko ab jaam xamut mënut a xam dara luy leer ci boppam moom bi muy laata juddu fekk na jullit yi na gàññ dana dellu yàgg dem sawara jullit yi gën di bari ginnaawam lii mag dénkoon doomam ju doon bëgg soxna ndeyam ak baayam bañ mu nangoo dogoo ak ñoom ngir dem te soxna sa baayam da ko woo ba mu ñëw mu ne ko te nga tey ci jigéen ndax bu la taxee ñaaw fii da nga faatu jigéen rooti ñu sanga la ko jigéen rooti ñu toggal la ca ay buri salax ba nga fat bañ fàtte la suul la bañ fàtte la jigéen ju dàq ju gën a rafet ka la taxoon dañu am judduwaat sa gannaaw tuddoo ci man dal loolu moo ko nar dal moom am na itam kenn ci kilifa yi nga xam ne dañ leen tudd ci adduna bi réew mu mag la jiite réew moomu sax nee na ñeey xaritub Sénégal la waaye réew moomu xaritoo wut ak Sénégal ndax bokkuñu fuñ jëm bokkuñu pas-pas mel na mag mu nekkoon Tuubaa Sëñ Fallilu Mbakke bañ ko ne Senghor sab xarita dana du sama xarit de saa su nañu fàttali ko ndax al axillaau yowma idin baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqin ña xaritoo fii bu ëllëgee ña cay gise seenu xarit di dund mooy ña bokkoon pas-pas kepp bokk yi réew moomu ñu ne yëqatu Sénégal la ka ko jiite waxe gone la wax xelum gone dëgg la yor mu ne yéen africains yi bala ngeen a jëm kanam dangeen a bàyyi seen njur mu bari mi xanaa ñoom ñëpp jëfur nañ kon waaw développement bu fekkee ay loxoo koy def ay nit a koy taxawee ñoo ko ñar a jariñoo suñu ñu juranti wut ku fay nekk ku koy jariñoo loolu xelam ko ne la jurut tontu daanaka moo tax kooku nga xam ne mooy kilifa bouddhiste yi dañ koy niroole ak firawna laanatullahi aley firawna moom nit ñëw na ci borom Tuubaa ne ko moom kaang fóore la kaang fóore mooy ku mokkal alxuraan te xam li alxuraan di wax xam arab yi xam balaaxa bi xam bayaan bi ak loxo bi lépp li mbooleem li wax arab di àndal mu ne ko moom gisut firaw na demee sawara fu ko yàlla tudd ci alquran sëñ bu mag bi ne ko demal jàngi suratu gaafir xamim tanzilul kitaabi min allahi al aziz al alim gaafiri dambi wa qaabili tawbi shadidi al qaabidi tawd la ilaha illa hu ilahi al masir mu ko koy jàng ka jàngaat ñëw ne ko seetluwuma ko mu ne ko jàng wa anna al musrifina hum asxaabu naar mu ne axa kay mu ne ko demal yëri suuratu yunus alayhi salaam mu di ko jàng ka jàngaat ne ko gisuma ko ca mu ne ko jàngoo ca wa inna al musrifina wa inna firawna al aalin fi l ard wa innahu la min al musrifin mu ne ko jàng naa ko mu ne ko demaatal ba ca kanam muy dem ba ca kanam ci sóoratu hóodin fattabacu amra firawna wa ma amru firawnu bi rachid yaqdumu qawmahu yowma alqiyamati fa awradahum annaar wa bisa alwirdu almawrud firawna moomu nag ba mu demee ba bew arme bi nekk ci ginnaawam ñii war ak ñiy dox ñépp ak ñiy sànni ay jum fenn fu nekk ka ko fa nekkal waaj ba jekk ngir ñu faagaagal far rëddu suñu borom bi ñu suñu borom di nett li mbiram daf ne yónnee woon na ci moom ku ñuy wax Seydina Muusa Seydina Muusa ànd ak mbokkam ma Seydina Haarun ni nga xam ne Seydina Muusa moo ko tax a doon ab yonent ndax moo ne arsil ila Haarun ak Haaruna axi usdud bihi azri am na feneen fi muy waxe ne yàlla tontu ko ne ko sanashuddu adudaka bi axika wa najcalu lakuma sultaana fala yasiluuna ilaykuma bi ayatina antuma wa man tabacakuma ba mu yónnee ci firawna di ko woo ci pas-pas bu wér bu bokkut ak jël muus yoo xam ne yaa ko tabaxal sa bopp yi nga tabaxe ko or ak i till ak ay jaan ak i picc tudde ko yàlla ba mu koy woo ci pas-pas bu wér ci yàlla mi nga xam ne mooy dundal di rey di saxal ñax mi di taw def ci géej gi jën yi mu ci def yépp ñu tekki seen bët ñu won ko gannaaw du mooyu ne kii daal li muy wax mat naa seetaat loolu mooy waxinu wolof wu tegginu wi ci yonent alayhim salaatu wassalaam boo ko wax ja foton xale daf ne Muusa ak ñem àndal nañ ma leen indil fii jox ma gànnaay ma ray leen ñu bàyyi seen wax ji ñuy wax ndax damay bañ ñu yàq suuf si ñoom ñoo yàq suuf si wala Seydina Muusa ñoom ñoo yàq suuf si ndax suuf si indiwuñ fi nit ñi ngir ñu tabax la ñuy tabax tuddee ko yàlla di ko jaamu jaa alxaq wa zahaqa albaatil loolu la waa ji waxaat du bàyyi ab jullit muy dund ci kaw suuf soosee ñu jàppee am réew Burma wala Birmanie wala Myanmar ndax su yàggee tuuti jullit dañ koy nangu seeni loxo te loolu moom du ko fekke ay sodaram duñ ko fekk seeni sët moom dana ko fekke moom jullit yi jël ko di fa nodd guddeeg bëccëg am ci généraux yi nga xam ne ñoo àndoon ci armée Firawna dog bokk ca kilifa ga bokk ca ay arkaan ba état major ne may leen ma ma sànni ci sama kàddu ñu ne ko bisimilah mu ne waaw su ngeen ko reyee da ngeen ko rey ci lu dul yoon lu mu fi wax lu jar ñu di ko rey yàlla moom moom mooy sama boroom moom laay jaamu loolu lu ñu ci reyee nit xanaa bew moo tax ma fàttali ko réew mu ñuy wax Turquie ak Iran moo ne réew jullit yee ko bari ëppuñ ci ab lim de ëppuñ ci doole it waaye bokk yi pas-pas day dund luy dund nag ku ko laal da nga ko yëg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon sa mbokk dee ko taxaw bu tooñee ak bu ñu ko tooñee ñu ne ko bu tooñee nu ñu koy taxawoo mu ne da nga koy woo yedd ko fee ne ko bu mu amati suñ ko tooñee nag nga taxaw fa muy taxaw ku bëgg a jaar ci kawam boole leen yéen ñaar jaar ci seen kaw jàll moo waxit ne moom sallallahu alayhi wa sallam ku mbirum jullit jitteelut soo limaalee sa bopp ci jullit it war ngaa seetaat sa bopp ba xam ci nga am déet moo tax yaari réew yi faw ngi leen tudd moo ne bokk yi réew mu ñuy wax Tanzanie réew mi ku ñuul la amuñu gànnaay de yu ñu demee xeexali jullit yi waaye démb lañ xëy wàcc ci mbedd yi ba ka leen doon misaal dafa leen doon misaal ci ay njéeréer njéeréer yu dëgmal gàncax di wër mbedd ya di ñaawlu mbir ma di wax allahu akbar ca kaw ñëpp di dégg ba kenn xamul mbooloo mu ca jaare bañ laajee lii ñuy dox lu mu doon bañ leen ko laajee bañ leen ko leerlee démb rek kenn xamul ñaata nit ñoo dugg ci lislaam ndax mbir ma naqari leen kon boog boobu ba léegi ñu ngi déglu ñi nga xam ne loo wax ñu ne droit de l'homme xanaa droit de l'homme moom ci politique rek lay am xanaa ci ku sàcc xaalis rek lay am xanaa ci ku def naka sul noonu bañ teg ko loxo rek ci lay am ñu naan droit de l'homme waaw jullit yi dañoo amut sañ-sañub làqutu ci kuy dox droit de l'homme mu aar leen wala ab jullit darul nit bokk bu ñu ay nit ñu wax ñu ko ñu xam luñ doon waaye bokk yi ngóor soosu ma doon wax ne xelum gone la yor gone moom ku bootu ci ginnaawam xamoo foo jëm ndax gone gu mën a gut a dox di jakk-jakki di kafa yoon ne la kaay ma boot la boo ajee say tànk it yi fi dof nga def moo tax ma jàpp Sénégal li muy sawar sawar ci nettali xibaar loola dañ ko nëbb nit ñi kenn bëgguñ kenn xam ko bëgguñu kenn xam ko duñ ci duñ ci laaj ku ci xam ak ku duñ ci laaj kenn duñ ci ubbi wax sa xalaat duñ ci ubbi benn wax benn waxtaan wuy wuy tegtale ne nit ñi dañ caa war a xam lu leer dañ koy nëbb ni ku ñuy tooñee di nëbbu lañ koy tooñee waaye nag ñoog caag léegi nag dafa mel ne nguur soosu dafa ubbi toolub xare bu yees toolub xare bi nag waxuñu ne nañ jóg ku nekk yor aw yar wala paaka wala jees ñu wutali Myanmar sori na sori goo xam ne fi mu ne nii sax jàpp nañ ne du neex a dugg waaye ginnaaw moom njaboot gu lislaam di am moo ko naqari na jullit yi def seen jihaad muy ko amagu doon soxna mu dem wuti ko te fas yéene am doom yu bari ku amoon benn na wuti ñaar ku amoon ñaar na wuti ñett te nef ko maanaam bu dee bu dee bu takkareen bu déwénee mu takkar keneen ba mu mat ñeent tey ñaan yàlla soxna su nekk yàlla may ko ci ñaar fukki nit ndax kat loola dañoo jëfur ñoom ak ña leen di jàppale ñoom ñépp waaye kenn xamut Sénégal gii ñu nekk sax su fi julli di néewe woon noonu nu muy demee waaye nag ñun jullit nañu wane misaal wane jikko ju rafet ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jikko wowoon ci naka may ñi fi tuddoo ku si néew yeneen ñu dëkk fi ñoom itam ku ci am njaboot su yàggee te fekk ñun ñu doon ay dëgg-dëgg jullit ay jullit la ñu mujj doon ndax jullit bi ñu dugg Sénégal melut nii mu meloon bëreewut ni mu bareewaan waaye nag musiba bu mu la bu mu la sori mukk ba nga ne bokkuma ca loolee ñoo ñu def ne nañ faagaagal jullit yi secret bi de soo ko feeñ rek waaye soreel am njur ak daganal avortement loolu lépp mooy li ne li ne ci kaw rek waaye ndekete yoo jëfur saa bu amee nit wax la mu defoon lépp kilifa diine gu taxaw ne daa bëgg a wàññi daa bëgg a jeexal jullit yi fii bala ñu fay ëpp doole benn ñaareel ba kilifa réew mu mag mu bokk ci juróom-ñaari réew yi gën a mag ci àdduna bi nee nañ ci aw tur te gën cee suufe ci pas-pas moo wax ne africains yi faw ngeen wàññi seen juróom doom mi lu ko may du ngeen dem fenn kon loola néew ma ñoo niroo waaye bañ ñu dalee wax négal bu kii amee doom bala ma ko amaat na toog ta noppalu noppalu gi fu mu koy fekk mosoon nañ ko fee fàttalante su fekkoon ne ku am doom bala ma ko amaat muy ñeenti at fu ñu jëlee xar yu tabaski mbaadu loolu dal nit ñi ci Sénégal daa wàll xar yi Sénégal ba mënuñoo am xar yu dagg tabaski gi ak nag yi ba xar yi ñoom itam di def ay pexe ba bu ñu amee doom bala ñu ko amaat muy juróomi at jullit yi nañ yeewu te dem takki ay soxna am ca doom yu bare bare bare ba ba suuf si na gàññ loolu du samay wax waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent bi moo ne dem leen wuti ay soxna te bu ngeen koy wut na ngeen rafet njortu ci ne kii danaa am ak moom ay doom waaye koo xam ne yow ka ngay takk ka nga takk moo la mag fuuf weesu njurum doom xam nga ne yow mu munoo wax nit ñi doom dara akum akum njur séentu woo ko yaakaaroo ko boo jaarul feneen séentu woo ko yaakaaroo ko tazawajul wadud al walud ay al walud al wadud fa inni mukaafirun bikum al umama yawma al qiyaama dem leen wuti ay soxna te am ca doom yu bari ndax su ëllëgee damay puukarewu ci sama ka samay nawle buñ ne xool leen sama xeet a ngi ni maye may itam xool leen sama xeet a ngi nii waaye yu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag raw nañ leen ba noppi ndax xeet woo xam ni wii fa mu yemoon lay yem góor du am soxna jigéen du am boroom kër jërul muy séentu ak yokku waaye xool xeet woo xam ne tey may nañ la nga dem ba ñeenti soxna yoo xam ne kenn ku ci nekk ñaan nga ci yàlla ab ci ñaar fukki doom génn kër gu nekk boroom kër gi am juróom-ñetti fukki doom yàlla na ko yàlla barkeel te te te yéem ko ba dolliwaat ko waaye ñaan lañ mën a goon foofa sori na ba mënewuñ ko ni ko waa Turki mën wala waa Iran waaye kenn ku ci nekk moom na def jihaadam muy dem wuti soxna su ko amagut su amee kenn mu ñaareel su amee ñaar mu ñetteel su amee ñett mu ñeenteel te teel a maye gone yi nag ndax ñu mën a jur lu bari teel a maye gone yu jigéen ñu mën a jur lu baree baree baree baree baree bare ndekete yoo teel a maye gone yeeg nañ suuree lañ doon meeg day tax ñu noppaloo te tax ñu wér ndekete yoo booba néew mu moom la nag waaye bi ponkal yi waxee moom loola fes na léegi yàlla nu yàlla musal ci pexe seytaane yaari bayit yi moo jàngoon sànq mooy waxoon nañ ne lislaam fa mu war a làqu foofu lañ ko bantale koo xam ne bu doon daw fa muy jëm si war faa làqu ñu làqu kenn du ko laal daa mel ne foofu lañ ko bantale foofu mooy fan mooy li ëpp ci jullit rek te ëpp ci alal dañ ne xiim ne miig na cell ñetti nopp yooyu benn bu ci nekk wala xam na ko ne xiim na miig na cell ne pat ndax lan noonu suñu borom yi ñoo nangu ñuy rey jullit yi te defuñu dara lu dul ñi ngi takk ay soxna di ci amee doom kepp te yàlla moom xamul frontière nit ñi ñoo sàkkee frontière naan fii laa tàmbalee fii laa yam waaye yàlla xamul frontière ndax amul waxtu moo tax lépp lu ne ci loxoy nit ci yàqu la jëm yàlla nañ ne ci loxoy yàlla ba faw mënees na koo xam ci meew mënees na koo xam ci ndox moo tànk ci ab déeg wala ak dex wala géej bokk yi suñu demee ci alxuraan danañ ci fekk yàlla duñu misaal kéemaan ci jur gi nga xam ne bi ñu gis leen romb leen wala ñu romb ñu wa inna lakum fi al-an'aami la ibratan nasqiikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan xaalisan saayigan lichaaribin ku xool jur gi da nga sa gis lu doy sëkk njàngat jur googu dañ koy rat di ci fekk meew meew moomu sunu boroom mi ko bind nee na moo ne day diggante seburit lay dox ay neefare ak wextaan waaye saa boo ko ratee day weextal nga naan la tax mu ñanga noonu daa ne ci loxo yàlla di ja di rombanteeg deret ji di rombanteeg seburi si di rombanteeg dem kër ya waaye saa bu ko nit ratee ba bëgg ko denc denc bu gën a ñoŋ foofa da ngay gis mu daal di way léegi doonum soow yàqu soow meew mu yàqu la su fa yàggee tuuti nga sut ay yu si juddoo yoo xam ne ba muy nekk ca batt ba du ca mës a juddoo mukk li fekk ma ngi ca batt ba nga dem ci ak dex goo xam ne fi la ko maam yépp fekk bàyyi ko fi mën ngaa sangu ci biir fóot ca def ca leneen du ko yàq waaye saa boo ko tànqee du loolu duyu la denc bi yàlla ba nga ko fa denc duyu la nga bëgg ko tànq yóbbu denc sa kër ñaari defar ñett nga tàmbalee gis ay wallax njaan wallax njaan yi foofu la ko toppe wala ci kër yi la juddoo ñàkk koo bàyyi ci loxo yàlla rek moom la yàlla di woon ab do kàttanam yàlla nañ la ci loxo yàlla ba faw ñu fàttaliwaat ne lépp loo xam ne nite ko nos lu mu ko mën a tudde fii rek lay mujj jëfur rek ku ñu topp ba mu yàgg mu ne bu kenn jurati doom bu kenn jurati bu xoolee ku ñu mujj gis bu fa yàggee du fa am ko ko topp njumte mënta weesu loolu ñaareel bi it diine joo xam ne ba ko yàlla di waajal say maamaat ak maam kenn xamul fi ñu nekk yàgg fi loolu nga door a juddu nga dem ba doole wër la rek nga ne nañ ko fi jëlee ba mu jax tàkk yàlla mën naa dogal ñaari ponkal yooyu fa jëm ak seen doole ji bari ja te lislaam tax leen a jóg bu wëññi ko wut bu ca raccee moom yàlla rek koy xam ba xam dana ca raccee ndax xam nañ fañ nekk fa mu nekk ña nga xam ne it ci waa Turquie wala waa Iran nar nañ faa des ñoom dañuy dugg ci wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu almawt faqad waqaa ajruhu ala allah yàlla nu yàlla bàyyi ba faw ci loxoy boppam te di ñu wan saa su nekk fu dëgg nekk te may ñu ñu mën caa jëm يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين